mbaa ma jur bala cee na am dara kii mu tudd sëñ Amidou na ko am ba noppi kon bu sëñ Amidou Mbàkke moom sëriñ si di taxawee bind livre bu mel nii ci maamam sëñ gaawam mu woo ma boole ma ci liggéey bi ñu ànd coordination bi ba mu yegg si fii su ma ñëwee ci jataay bi damay toog ba mu jeex ba pare di bëgg ci sama xol di dund sëñ gaawam damay wax ci télévision yi ne leen sëñ Touba sax su ma cee wax man damay bind bala maa dem ci benn émission damay bind sëñ gaawaan rek laa ñeme ñu woo ma 4 heures du matin ne ma jógal bu ma jógee rek damay wax parce que moom deful dara xuraafaat li mu def loo xam ne da ngay làmb teg loxo lu palpable la sëñ gaawaan def ci kaw suuf passage am ci kaw suuf dafa nekk passage bu am solo léegi laay wax sëñ bu Mbay ma ne ko su doon ci yoonu murit zahir la ak politique premier investisseur bi mooy sëñ gaawaan parce que à l'âge de 18 ans ñu jox la dëkk jox la juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom-ñeent ne la boole ci sa bopp loolu bu doon politique ñu campagne jàpp naa ne moom mooy premier investisseur bi ñu investir ci ab dëkk bàyyi ko fa ngir décentraliser l'islam ak yoonu murit léegi nag jamono daa toll foo xam ne wax kese muy naaw amatul solo waaye bind mooy référence yi nga xam ne dafay des parce que wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa mbafi fi sëñ Tuubaa waaye wax naa ngeen dégg ña doon gisanteeg sëñ bi la ko doon waxal jëf naa ngeen gis ña doon jamononteeg moom la ko doon defal waaye bind naa ba fi ñun ñi ñoo taxaw sëñ Touba boo gisee mu wéy léppam ci am bind daa bañoon bu ëllëgee ba jamono yegg fii ñu yegg si ñun ñu réer kon sëñ Amidou lii nga def benn la ci exemplaire yi nga xam ne ni moom la mu ndaw yu murit yëpp def war a def li ma ci dàqal mooy ñu ne sëñ Amidou ñu ne ñoom sant ñu ne Mbàkke kon nag Mbàkke ab sat nga noo ngi lay sant bu baax di la gërëm ci turu njabootu Daaru Salaam gépp nag parce que richesse ak wax li nga xam ne ni moo am wax dëgg yàlla wàññiwul dara te sëñ gaawaan jamono jii ñu nekk des na tuuti mbiram yëpp dana leer naññ te dana feeñ dàng ñëpp tekki seen bët ñeent yi nga xam ne sëñ gaawaan defal na ko sëñ tubaa amul xorafaat amul kenn mboolem ñi bind ci sëñ tubaa ñëpp soo demee bind nañ ko loolu mooy lan moom la sëñ tubaa njëkk a sampul santalu dëkk bàyyi ko ki taalibe ndax doyloo gum ko doyloo moom la sëñ tubaa njëkk a demandé ko fekki ma Gabon moom léegi sëñ tubaa laajoon de mu fekki sëñ tubaa Gabon bi sëñ tubaa wàccee fii Sénégal ñu ne ma ko ci waaxu Moussa Seri mi moom rek la demandé oye sëñ gaawaan sëñ gaawaan ne ne keroog ku ne nay ban ku ne bëggoon nay man may yot ndànk di yëg ci kaw bi sëñ tubaa ñëwee fii itam di def caravane dana fu ngeen ma dégg dama faa jaar daaru salaam lay tekkee samay bagage loolu sëñ tubaa ko may soxnaante njaay mbàkke mi waajuram menn moom kese moo nekk ak sëñ moroon sëli ca deqale même soxnaante njaay kon dafa am yoo xam ne du du xurafaat waaye dañ ko war a te buñ ko bindee des na tuuti taarix dootu ko weddi kon jaaraama sëriñ bi noo ngi gërëm daf noo gërëm loo nag ay kilifa xam naa monsieur le ministre ngi xaar pour moo paree bu attaqué ma waaye tey moom da may baal rek ndax tey moom damay jeng eh, ñu ngi koy ziare baax sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké muy koo xam ne nii xam naa ne ku apprécier eh, ñu mel ni sëñ am ñi la parce que ku bëgg kuy kuy góor góorgóorlu ci xam-xam la di ci liggéey te di ko yaatal sëriñ bi dafa wax ne nañ ko gërëmal ja ab Ablaye Dia ñun képp ku bokk Daaru Salaam di ko gërëm soo ñëwee ca pencum Daaru Salaam mais gis taxaw gi mu taxawu njabootu sëñ gaawaan ca jumaa jëli danañ ko gërëm bu baax sant ko àddina nag moo yeyoo koo gërëm ñu jàpp na da ngeen koo xam wala da ngeen koo séq waaye nit bu defee lu rafet la alxuraan waxoon hal jasaawul ihsaan ilal ihsaan kon sëñ Ablaye ñu ngi koy gërëm livre bii bi mu ko defaree bokk na ci ñi njëkk a taxaw sponsorisé sëñaa bi dun ci livre bi lii sëriñ bi bind ko ngir ñu yóbbu ko ci armoire yi tëj ko bind ko ngir ñu leer ko rek denc ko ci waxande yi waaye daa bëgg ku ko yàlla man loo nga participer ci ba pare jël ko fexe mu tasaaroo ngir bu ëllëgee jiixi jaaxa dootul am kenn dootul wax lu tax bind leen ci sëñ gaawaan na nekk première fois bu ñuy rafetlu waaye na nekk loo xam ne dañ ko dañ ko ci accompagner produit yi ëpp solo ci àdduna léegi juvier ko moom xam nga lu tax mu yaatu parce que dañ ko defar avec des marketing yoo xam ne yu am solo lañu ñu koy utiliser ñun jullit yi te xamuñu lu xew kon livre bi dañ ko war a jënd ba noppi fexe mu tasaaroo kenn ku ci nekk participer ci kon sëñ Ablaye lii mu def mboolee kuy chef d'entreprise na ko def mboolem kuy kilifa parce que léegi dangay romb daaru salaam nangam daaru salaam nangam daaru salaam nangam te bëgg naa bu ñuy defaat lii ñu def affiche boo xam ne dañ naan daaru salaam nangam mooy société bi nga xam ne jënd na nangam ci ay livre tasaare na ko nañ ko yóbbu ci ay université ñu mel ni sëñ sëñ xaadim Bamba Diagne nañ ko yóbbu ci école yi nañ ko yóbbu foole mbooleem foo xam ne dañ fay def livre nañ ko fa yóbbu ndax ñu jàngale sëñ gaawaan ci biir liggéey bi ñu ngi gërëm bu baax a baax sëñ Moustapha Dia moom it Sénico sëriñ bi ne la mi koy gërëm ci taxawaayam ndax ku ne di nga xam ne jàpp na ci xalaat na ci ngir bañ erreur am ci kon coono boo mu ñu mu mu ci daj ba ñëw fii mënoon na ko defee Paris mënoon na ko defee fu ko neex waaye da ko indi fii keroog bi ma woowee ñuy waxtaan mu ne ma ah am na ñu may wax sax lii ko war a defee waaye man Radisson laa xalaat ma ne ko sëñ bi fépp foo jàpp ne moo gën a cher ci réew mii pour nga def fa dédicace bii na ko fa defee ndax sëñ gaawaan jar na ko te itam nag jataay day joué ci li bëgg liggéey ñi ngi seet ñu ngi sant bu baax sëñ saaliw sëñ saaliw Diop moom it eh, daaru salaam Touba daaru salaam constitution léegi la ma sëriñ Maamoun moom sëriñ Sidi di ma ko nuyoo leen moom it mu jàpp lool ci liggéey bi bii ci guddi la ma alaaji mbàkk fay di wax ne lii na ngeen ko yaatal ci télévision bi ndax dama bëgg ndaw luy yëngu ci xam-xam te di ko yaatal te ji jàpp na ci ak sëriñ Cheikhouna Mbacké trading moom it dama ko fàtte woon waaye moom it ku jàpp ci liggéey bi la